coalition de gouvernance coalition électorale la ñu am coalition boo xam ne da ngay ñëw ànd ak ñun dem seeti sénégalais yi wan leen projet bi Ousmane Sonko bi te Diomaye moo koy porté buñ ko falee du doxal buñ ko falee moom mi nga xam ne mooy candidat bi ak Ousmane Sonko bi nga xam ne mooy président bi bu ñu génnee bu ñu naree dem yow ay gouvernement moom boobaa xëy na waxtaan mais mais

fexe def seen fexe ini

li lépp si njaboot. waaw Sonko mooy Diomaye dafa leer. <laughs> Thank you. naa la. maa ngi liggéey. maa sor démb laa yegg si moo la. maa ngi cool. waaye naa si kanam. waaw léegi léegi. voilà gars yi. Euh, comme nous ngeen koy les euh, les véhicules de la coalition Diomaye nous ngi nii di yegg si donc d'un moment à l'autre euh, la grande caravane va démarrer donc li ñu doon xaar amaana yegg si na li ñu taxoon donc d'un moment à l'autre la grande caravane va démarrer. on va sillonner les artères de Dakar pour faire la promotion de notre candidat Bassirou Diomaye Faye avant nous dem terminer ci li nga xamante ne meeting bi nga coalition bi mi organisées, il fallait que le terrain AKPS. voilà comme vous le voyez hein, l'ambiance bi commencé à fii ci cité euh, la tanière du lion comme on a l'habitude de dire Voilà, ça c'est l'arrivée de Dambout. Dambout est ici. donc comme vous le voyez Dambout est bari bëri doole le le qui yi nga xamante de donc pour dire que voilà Dame est yegg si na voilà Hello. Nice.

amul daw amul daw amul daw Wah, yo, mau ah pardon may ma nga mën ko jël si. non grand ma déglu ma fi laa koy teg fi laay teg sama loxo dafa ndànk rek xam naa lu may wax. deuxième tour amee rek dinañu commencé si ci la sincérité. incha allah jërëjëf dégg ngeen li nga xam ne moo di Babacar Sy moom mi nga xam ne moo di wax ne. voilà gars comme nous l'avons dit ko waxee woon cinq ans euh, juste avant le début de la début caravane donc j'étais juste pour vous montrer l'ambiance qui règne présentement à la cité de Gorgui fi nga voilà euh, ñi ngi par de petits groupes au fur et à mesure ñuy dem nit ñi di gën a voilà donc c'était juste pour vous montrer l'avant-goût Inch'Allah, allah bu caravane bi commencé on vous fera le plaisir de vous montrer le caravane euh, la caravane plutôt euh, du début à la fin wax leen micro bi dem voilà non fee la jëm waaw waaw waaw bu soree son bi day tàgg dañoo andi li nga xam ne yaase tay jox ko li nga xam ne jox ko li nga xam ne dafa war gaay xam naa ne dañuy nekk ci ak di ko gis waaye lu ci mënti am jàppale na jàppale na Euh, voilà Guy. Nous devons juste faire un petit tour On exactement euh, li à l'heure où je vous parle donc la caravane va démarrer d'un moment à l'autre leader yi ñu euh, militants les gens sortent de partout pour venir vraiment assister à la grande caravane la coalition Diomaye Président qui organisée organisé, tey la caravane en fait euh, de lancement de la campagne électorale donc bu caravane bu wesso aussi euh, dinañ djubali fee nga xamante mo ci terrain ACAPES bi nek parcelle Aseni pour amal fa ben meeting bu reuy reuy reuy meeting de lancement aussi de campagne bi nga xamante coalition Diomaye Président mom lañu initier tay buñ jógee ci lolu aussi dinañ leen wax exactement lan moy suite programme bi